jàngeen jëfati ci ànd bi ak euh, télévision Futur euh, Média dale nag jàmm ci xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak gise bi nga xamante ne nii euh, njiitu réew mi Macky Sall mi ngi koy gisee ak étudiant yu Sénégal lépp nag téeméer ci étudiant mu leen di dalal moom njiitu réew mi solo si rek mooy wut saafara ci jafe-jafe bourse yi nga xamante ne saa su ne mooy waral étudiant yi di yëngu-yëngal ba léeg-léeg nag bakkan di ca rot daara yu kawe yi nekk fii ci Ndakaaru diwaanu Ndar Bambey kon euh, dañ ñu ngi teew rek ci moom yëpp euh, ndaje euh, fële moom ca Ndar ak université boobee di Gaston Berger gannaaw nag étudiants yi tey liggéeykat yi ñoom ñoo delluwaat rek di xayma tolluwaayu yàqu-yàqu yi ñu fa amal keroog nag ba yëngu-yëngal ya xewee ca daara jooje ñoom nag liggéeykat yooyu di naqarlu bu baax a baax ni ñu leen seetaanee ndax nee ñu ñu bari ca ñoom tey daanaka àndatuñoo ak seeni xel ndax jafe-jafe yi nga xamante ne dund nañu ko ba suñu sañoon daal kilifay boole leen ak ab psychologue ñoom nag nag ña ngay tamit waxtaan yi ñu boole leen ci Ousmane Ndiaye moom mooy secrétaire général bu syndicat boobu ci micro Ousseynou Diop. li nga xam ni moo fi yàqu ci biir université bi te meru étudiants yi indi ko PATS bi moo ci gën a sonn ndaxte sunu ay bureau sunu ay jumtukaay lanu lakk yi lakk na leen yii yàq nañ leen yii yóbbu nañ leen amatuñu benn outil de travail. loolu nag créé na traumatisme bu mag ci PATS bi moo tax tey ñu daje ci loolu sax sunu syndicat comme nam ko daan defee wut na ay psychologue yoo xam ne daanu jàppale nit ñi pour que émotion bi nga xam ne choc émotionnel bi nu am ñu mën ko romb. moo tax STSU syndicat majeur majoritaire ci diwaanu université Sénégal yëpp taxaw na pour bokk ci ñiy tabax UGB ndax dañu jàpp ne. ñun ñooy tàmbali tabax bi autorités yi fekk seenu fi donc engagement solennel la STS jël tey. ñuy ñaan autorités yi nanu continuer ci sillage boobu ñun partenaire social lañu nan ñu boole ñuy def ay médiation di rappeler aussi ne comité universaire dialogue sociale yi ñu dox ci université yi. gannaaw ndar kunun foofe moom nag ay kër la ñu fay uh, toj rek seeni i borom mer lool ñoom nag neenu seen kër yooyu ñu toj nag ba ci sax uh, terrain ñoom nag jàpp nañ ni daal uh, ci këyit yu leer lañu ko amee ba tax na nag ñu ngay sàkku daal ci kilifa yi ñu wallu leen ñu bari sax ca ñooñee ñu ngay liggéey ca impôt et domaine bu Sénégal Ousseynou Thiam ay kër ak ay parcelles yu ñu toj ci département bu Tëngéej bi yoon nag fële la ci kunun ngalap nekk ci commune bu Bambilor ci lii di titre foncier 1043 R lu toll ak ñaar téeméer ak fanweer juróom-ñeenti njaboot yoo xam ne yi amoon nañ fa ay kër ñoom daal ñoom ñoo gis seen kër yooyu ñu rajaxe ko te amul benn sommation rek buñ leen jox. mbooloo bi fi taxaw yëpp ñoom dañu am jaaxle goo xamante ni daanaka war na mat at ñu ngi ñëw fekk leen seeni suuf toj ko terrain la boo xamante ne euh, dañ ko joxoon état état daal di leen jox ay boo ba pare ñu tabax ba pare ñu toj ko te am na tabax yoo xamante ne ñu ngi fii kenn toju ko boobu ba léegi tamit ñu ne dañ ñu jox feneen joxuñu nu fenn ñun nag sunu terrain la ñu soxla moom la ñu bëgg sàcckati suuf yi ñu ngi sàcc suuf di di jëg di ko jël si ñu néew di doole yi di yàq état bi képp koo xamante ne jënd nga fii 10 43 r féeteex ku dun ngalam amoo dara ndax ñi ko moom a ngi taxaw. mer ba futt lool yooyu victime na ñi sax doon ci ay fonctionnaire yu service bu impôt et domaine di ñaan autorités yi nag ñuy yàbbi ci mbir mi ndax ñu dellewaat leen seen terrain yooyu. Ah, xeex bi ñu fas yéene entendre fi ñu toll nii état na si taxaw balaa dara di xew ndax boobu ba tey nu ngi nu ngi négocier kenn faale wuñu commune Mbambilor faale wuñu Tëngéej faale wuñu Ndakaaru faale wuñu bu ñu bañee nag dara tuuru fi nañu jox suñu yëf. gannaaw seen génn bi la nag yooyu victime ne dinañ def leen nëb nag ba xam waa ji nga xam ne nii moom moo toj lu seen kër yooyu. ñu wax nag ci jafe-jafe di d'identité yi ci euh, Sénégal léeg-léeg nag ñu gis ne euh, bu nu dooree daal euh, mbindu mi askan wi ñu bari dañuy yéex a dem ba tax na nag léeg-léeg ñu koy yokk maanaam yokk la nu war a bindu maanaam waxtu ya ak li nga xamante ni moom mooy bis ñu ne nag lan moo sabab sax boobépp yokk koy yokk lu soxalit carte d'identité yi ñu ne nag jël gataxu taxu ko am solo ndax bari na ñuy bindu jot lu ñu jëli seen i carte d'identité ak jafe-jafe yu ci mën a am ci ndodd nguur lañu ko ngàll Alassane Ba biñ leen fekkee ñu toog commencé wax ci mbirum carte d'identité rek ci la daanaka débat bi tàmbali ci diggante kii di Mamadou Diop ak Ndiankou juuf ku nekk ci ñoom nag am na xalaatam ci li mel xalaat yu wuute des fois nag ñu déggoo ci benn pàcc mi lépp nag ci dal ak reetaan nañu woote nañu woote ci numéro yi joxe. wallaahi man maa ngi ci 67 euh, ans janvier 51 la juddu kon amal bari loo fi xam mais damay carte d'identité problème bi tam mosut am ci yenn carte d'identité mosul am. comme yàlla moo ko dogalee nii nañ nangu ne yàlla moo ko dogalee nii waaye nañ jéem a def effort ñun tam jéem a liñ defar ba pare. ku nekk ci ñoom nag am na ku mu joxoñ baaraamu tuuma ci lu jëm nag ci carte d'identité biométrique yu nekk nag ci commission yi ba léegi sénégalais yi jëlee guñu leen wala bokk lu ñu prolongé validité carte d'identité numérisée yi ba fan fanweeri fan ak benn ci wérub août bi ñu dëkkmal ñenn ñi ne nguur gi la wante ñeneen ñi ne askan wi la. ni ñi jëluñ seen carte d'identité yi te buñ ko fi yemalee ñu kaas comprendre kon nag dañ ko war a parce que d'identité ko jëlul yu bari pare na mais jëliwuñu ko dugal ci bureau yi ñu jëlee carte d'identité yi mu ngi fees dell ak carte d'identité man moo sama gànnaaw teel na ci jot man dama teel a jot wax dëgg yàlla teel waaye nag nii nii kaas di ñaxtu si jot nañu bari na trop lan ma jumtuwaay jumtuwaay yoo fa niiwul wala ñu ko defar wala ñu ko def jotuñ ci loolu moom problème la question la déposé war nañ koo defi bu paree war nañ la koo jox mais pare naag parewul na ñoom ñoo ko xam. tamit dem maanaam sa quarante nga ñëw fi nga ko déposé nga ñëw doo fekk sa quarante alors que da ngay woote numéro vert bi dëgg la mais dañ lay wax beneen euh, duñ la département dañ la beneen région boo xam ne bon yow da naan mais est-ce que distance bi quoi dinaa mën a dem récupérer ko en attendant a prolongation bu bees ci carte d'identité numérisée yi askan wi ñuy sàkku nag ñu génn dem bundu ji wala bokk dem retirer seen carte d'identité biométrique yi nguur gi itam ñuy sàkku ci ñoom ñuy produire

ñu wax euh, ci mbayum euh, pomme de terre bi ñu ne nag euh, ren daal mbay mi dina gën a bari ndax loolee la ñu xayma ca zone des Niayes seetlu ga genn la kon mboolem marché bu nekk ci réew mi rek daanu fa wàcce pomme de terre ba mu doy sëkk fii sax ba tabaski ñu jàpp ne nag dara du manqué ña ca yëngu nag ñoom ñoo ko xamle wax nañu leneen tamit lu soxal wàllu njëg bi nee nañ nag ak déggoo daal am na ci pomme de terre bi warta weesu juróom-benn fukki dërëm maanaam kilo bi tamit ñi nga xamante ni ñoom la ñu toppatoo lépp soxal wàllu marché dina ci daal di defub seetlu ba nga xamante ne nag njëgee bu ñu ca yeggee daal du weesu juróom-benn fukki dërëm ñu dem ba ca diwaanu euh, Kolda ak engrais ba nga xamante ne jagleel nañu ko baykat ya foofee lu toll ci ñaari téeméer la euh, ci tonni engrais ñu jagleel leen ko nag mu ñu ñuy yëngu euh, ca mbayum ceeb ma loolee nag ci ndimbalu lëkkaloo gi dox ci diggante Sénégal ak Italie Abdoulaye Diallo. béykat ceeb yu diwaanu Kolda ñooy waaj mi ci jàmm kuréel bi ñu duppee projet agricole Italie Sénégal moo leen baaxee ab quantité wu engrais bu ñaari téeméer tonu engrais urée Il s'agit de 290 tonnes d'engrais qui seront euh, disponibles. daanaka 290 tonnes engrais la ñu indil béykat ngir euh, campagne ren ji loolu dina tax béykat yi nekk ci vallée yi te projet euh, PAIS di leen jàppale ñu teel jot ci seen engrais yi surtout que ñu ngi ci weru mai. conditions la campagne dans les vallées appuyée par les programmes PAIS. dañ fi ñëw pour réceptionner 290 tonnes urée. bu programme agricole Italie Sénégal euh, recevoir via la coopération italienne pour jox ko béykat yi. 290 tonnes yu ñu jéglee région Kolda ñu ngi koy répartir ainsi 140 tonnes mooy dem Médina Yoro Foulah 55 tonnes mooy dem Vélingara ak 95 tonnes mooy dem département Kolda. bile projet day bokk ci luy dooleel suñum réew ca wàllu béy dundee te jarale ko ci mbéyum ceeb. bu ñu gisee benn partenaire mel ni ki Italie coopération italienne bu ñëwee pour dooleel maanaam euh, maanaam jàppale boo nga xam état mi ngi koy def ci wàllu urée ci wàllu xeetu engrais yi loolu dañ koy rafetlu encore une fois te day permettre encore ëllëg si biir campagne bi ñu jëm si ñu fexe ba gën a dooleel maanaam mbay mi pour que vraiment lépp loo fa dem xeetu xeetu pepp la ñu koy jëfandikoo ci diwaan bi ñu mun cee am vraiment résultat yi nga xam ni dina dina dina dinañ ci am euh, mbégte maanaam pour développer maanaam agriculture au niveau de la région de Kolda projet pays day yëngu ci diwaan yu Kaolack Sédhiou ak Kolda te kopparu projet bi toll ci 18 million d'euros jaajëfal ko Abdoulaye jàlloo ñu wax nag ci tàggat yaram ak euh, jongante xaritoo bi war a dox ci diggante euh, sunu gayndey euh, Sénégal ak Luxembourg loole nag war a doon fanweeri fan ak benn ci weer wi ñu ne maanaam alxemes lay doon jongante boobu nag mi ngi jëm rek ci waajal coupe du monde bi ñu war a amal fële ca Russie sunu gaynde nag kon teew nañu démb ci seen tàggatu bu mujj def nañu ko laata ñuy laale ak Luxembourg mennum Sadio Mané nag moom moo teewagul ca équipe boobee ñu koy xaar ñu des ba tey ci euh, tàggat yaram ak njaayu mayo yi fii ci euh, Sénégal saa yu euh, jongante yu mag jubsee ñu ne nag mayo yu Sénégal yi ñu ngi koy jaay bu baax a baax ña ca yëngu loolee la ñu xamle am na ñoo xamante ne sax ne nañ jafe na ci ñoom ngir ñu xayma dëgg-dëgg ñaata lañu ñu jaay dañ ci ànd ak Habib Faye Modou Diop. la des ci mondial bi bëreetul askan wi riir wutali marché yi ngir rekk am maillot bu équipe nationale bu football bii magasin yi foo dem ña nga fa même sax ci suufu tànt yi ña nga fa wékk lii di mooy équipe nationale bi vert blanc gën ci fës jaaykat yi ñoom di ci gis bu baax seen bopp abibu ay at a ngi nii muy yëngu ci njënd ak njaayub ñu ngi soutenir Sénégal baax wax yàlla ñu ngi ko jënd koy jënd xew wala na xam nga nit ki amul lu may réewam nit ki amul lu may boppam dafa war a fonk boppam waaw maa yemul fenn am na yu huit am na yu cinq am na yu quatre mille fenn daal waaw qualité yëpp dañu nag. moom mi mënut lim ana ñaata lay jaay par bés. ah doo ko mën a xam doo ko mën a xam ndax avant ngay ñëw am na ku ma jaay quatre maillots léegi mu génn waaw dem jëndal ko ay xaleem ñi magam doo xam li nga ciy jaay par jour daal. donte sax moyen ya muy jaay nekkul ay originaux moom mi moo ngi koy jaay ci anam ba mu ko mënee. waaw depuis ba léegi maa ngi ci liggéey. lii daal yi daal bu doo moom. bi moom du original prix bi laa koy jaayee man last price bi moo gën a yomb beneen bi beneen bi ay quatre mille lañ koy jaayee wala tey fi nii trois mille cent naam marché bi bëri na lool maillot équipe nationale bu football waaw ah, mooy kon ñun moom lu xew rek la ñuy kii quoi dañuy jaayale tamit yeneen maillot maillot ni ni qualifié ñëpp dañuy jaayale seen maillot Argentine ah, ba ba Brésil yëpp mais instant moom mooy Sénégal la gars yi gën a lii quoi xam nga dina qualifié waaye li leen ci jaaxal rek moo di ci grande surface yi ñoom ñi jotaguñu ba léegi seen commande ngir rek mën a dund lii di mondial bi tax na ñu jiñ baaraama tuuma fédération sénégalaise bu football bi aaye njaayu mayo yi fépp ci biir marché bi. stock bi ñëwagul ñu ngi koy xaar ba léegi. dafa tardé c'est au niveau de la fédération lool la ñuy wax parce que nee nañ ku jaay foofu fédération jàppal ku jaay baaxul fédération jàppale fédération moo yor monopole mooy moom la ñu xaar. Sénégal ca coupe du monde nit ñi riir wutali ci marché yi ngir am moyen gi ngay suñu gaynde yi ñu koy waajal bu baax a baax boobee coupe du monde mbokk yi fii lañuy tàggatoo ak yéen ci xibaaru marax yi 20h Cheikh dina fi teew ngir faram-fàcce xibaar yi ci nasaraan lay doon jaa ngeen jëf.